asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay man Awa njoon laa tudd dëkk Bargny bokk si association ànd taxawu ñiy di ta yàlla tax. waaw man Baye Pape ni ma def ci ba bokk si association bi damaa toog sama place di seetaan YouTube gis sa vidéo yi mu marqué ma ma toog bay samay ronkañ di tuuru ma xam ne lii daal. wax dëgg yàlla am naa si yëg-yëg boo xam ne tey war naa bokk war naa si mën a bokk pour liggéey yàlla suñu boroom wax dëgg yàlla yow nag yaa ma motiver ndax yow da ngaa nekk ndaw goo xam ne jël sa yitte yëpp jël sa temps yëpp def ko si association ànd taxawu ñuy di te yàlla tax wax dëgg yàlla man damay roy si yow ndax sama idool nga ma ne nag Baye Pape ñaa fi mu teg tànkam fa laay teg sama bos ndax bëgg naa ëllëg yomal xiyaam bu taxawee sa euh, euh, euh, kii num tudd àjjana firdaw si ah man it ma taxaw si côté am lu mu liggéey ma ma ne ah kat lii kat si Baye Ca Baye Pape laa koy xoole waaw ànd bi wax dëgg yàlla moom macha allah ndax ñun ñëpp benn lañu di leen ñaaxaat rek ñu gën a tàppe xol yi boole xol yi te xam ne lépp yàlla moo ñu tax a jóg ndax ànd jayante tàggalikoo jëwante wax dëgg yàlla bu ma sañoon nag ñun ñëpp dañuy bokk ndey bokk baay te laxasaayu defar te yàlla tax ndax ñun ñëpp yàllaa ñu fi indi waaw